li ko dalee euh, cheikh abdul qadir suwaani Baafoodee suwaani ñoom ñee juutu ci jéew ji seen mag kenn ku ci nekk fon na bi nga wax danga ko xar ba mu ba mu ba tàlli ñareet cheikh abdul abdul qadir amul lu mu bàyyi ci yonent bi tey jooy loo nit ñi radiyallahu sallallahu alayhi wa sallam baa foo dee suwaane ñëw kii naka la nit ñi war a mën a comporter par rapport ak boromam par rapport ak ak ak société bi mu tajal ni ci loo xam ne man musuma xalaat na am na yooyu xam-xam lépp mu teg ko ci alquran ak sunna bu set bu set wecc kon sant yàlla bu baax a baax a baax mooro mu Muhammad Muntaga képp koo xam ne danga daan dem sangal kam gis nga ne gàmmu ren lu mu lu mu see leelatul ren musu ko def wax leen ma waay seede leen ko inene maaje de eh. Eh, ba tax na man gëm naa ne lépp loo xam ne ñaan nañ ko foofu yàlla nangu nag waaye nag ñaan du doy moro nit ñi sonn nañ jamono metti na ah jamono tar na nga ñaanal ñu yàlla moom bu ko oyofalee rek mu oyof tol waaw naataange ñëw nga may ñu yàlla may ñu wér ak wérle ñu nekk nag ay jaamu yàlla ala ki nga ki ala taati nga ke ala taati baba karamba suwane ala ya simaya ala ya ala ya grade grade la woliyatu munen man ji duniya kono akana tuɗa fenkili ye kumpoto annata kuñima be kay wala mu kalifo la duwati wala mu mbela duwatu katu kon deta nayin tata je sango sango konton la akonye nenko nko mole nenko say cheikh abdoulaye karamba fe on fen fo mo be bula wono atela banke ni kalifo atela banke ah man tara grade yitandila par moom depuis 2004 serun salihu mbake ko alala kekendol ka ɓen ɗamin ton natata ka sidula kiling ama fo gunda fo duniya ɓele tema serun salihu mbake ta kutubu zamanti wot maman si kila fo kan woto ɓa seburan ɓe mum tole bi wo ñanta jogol kumpalale nte kuŋo aɓe duwala molle mol koye ɓe korontola ko ñe seedi mu tolel let nkaye munen baba ako ñe foye mala nin ɓe duwala alaka saŋo ɗayelel billahi atala bankeñ alayentel le kenkeŋ mu yewol bee la duñoo soto ay ñuli bee la duwa soto ay ñuli bee la ŋaniya ñiima soto a bee duwata ye birin baaba eh, alhaji cheikh ibrahima fo duma a bee le duwata musu kafurinke la dindinkee baa i barindi kuwoku mume bee wala ɓe nomorinte cheikh ahmadu suwane ahmaduna rahmatuna baba ale ye banke woto ñin toñima ala ya sele ala kana jindi muk abadan inchallahu yeɗɗuwa molye wala mun nakkuma kawti allahuma salli ala seydina mouhamadin wa sallim mol ɓeeta sirinno wala yatinno أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 musulmoluŋal be konton sëñ bi nee na mbokk jullit yëpp mu ngi leen di nuyu ŋal be ziyaara mu ngi leen di ziyaar ɓe duwalali ye mu ngi leen di ñaanale tamit faala si sunkaroo muta ba yàlla nangul ñu suñu koor gi alakanantu konko kenseŋo la yàlla bañ ñu nekk ñu nekk ci xiif rek alakanantu mindoo kenseŋo la yàlla bañ ñu nekkal ñu mar rek alakanaa junubi tun na yàlla ba ñu desal benn baakaar atamim kafar lañu baakaar bi nga xam ne duñu ko jéggal yusufu ye min fo nee na alaa yusuf seydi kàddu yu mu yëkkati fii lool la kamuru daayiral kan kee tentu wo maŋ yusufu yoo kele nee na dellu ci daayira yi di leen sant ak di leen gërëm alaa yusuf seydi def na ko ba pare sànq daayira al silafanda wala tutaji nee na jox sëriñ ca daayira bi moo ci des Mouhamed Salim radiallahu taala anhu nee na cheikh na cheikh Mouhamed Salim Soane radiallahu taala anhu amamari maaka suukoo min laaten nee na sëtam bii nga xam ne muy jëkkati kàddu yi ki kii bayti yi ni amaa soto fenn fa ala ñaasi la nee na amu ko dara lu dul sàkk lu dul ragal suñu borom ka bula ala nooma topp yàlla ka ala kilimbayandi di bennal suñu borom ka seneyandi di ko kennal di ko setal ka ala lafi kuolu la ka lafi olu la suñu borom yi mu sopp mu sopp ko aman lafi min la koolu tujee yi mu bañ mu bañ ko a y'a soto wale la neen loolu la ko amee ñaaje moo lee ñaaje yow moom Mouhamed Salim taala anhu neen soo gisee ñi tuur ay xéwal si lun be sira ko Mouhamed Yahya ya dimma nee benn jour la toog mu ne doomam bu ñu wax imaam Yahya mu nekk limam akaye naam mu nekk naam akaye kami miira jangaalon ne mu nekk li ngay xalaat ci jotaa bi xam naa ko akaye mu ne kamine miira mu nekk lan laa a akaye te kañine miira mu nekk yow li ngay xalaat niyen fele i ka miira num fontete bola duniya akaye aɗum lungu bina silanteɓe bola duniya ley ten jela nee da ngay xalaat ni man duma mus a génn àdduna te bis dina ñëw dinaa génn àdduna doo ma gis akaye woto a fo bi min diyaate mu ne ko kon waxal tey lu la neex wala yaatin na moo tax mirolu jamfata nee xoli sori xalaati sori sukula la sukula sukulaala way kat bi way legi ak wa khusul fala nee na mu ne wa xuusu fala wa jinnu wal jinnu wa qayru fi hawa aqarr bi taqdimi yanqumu fi talaajumi muna muna batanga Mouhamad Salim Fale domoon ding dama leen di waxal Cheikh Mouhamad Salim tuuti ate fon la kaa fam fo de mooy wax boppam loolu a ah, ko mu ne mu na ñin kunoolu mu ne picc yeen di gis min ka tiiten yii naaw nii ani jinnoolu ak jinne ka min be taamoo la ak ñuy dox ani ala yaa dada ak tumboolu ak ñintum boolu beeyoŋolu feŋ feŋ na leya je i bee le yente suute baratolu moolu le be ñoo saboo la nte fonte lemu fontente bari daafeŋolu wolu ye a loŋ ne jimaa <laughs> lemu jimaati a loŋ jimaa lemu jimaati mandigolu ko pura dammaa ñoo duntuŋololu la daafeŋolu ye a loŋ ne jimaa lemu jimaati bari daatolu moolu atolu le maa loŋ nte mu jimaa le de walla jimaa lemu jimaati Salim radiallahu taala anhu mooy Cheikh Mouhamad Salim Soane radiallahu taala anhu bara soto ala nya silanol ne way lo lepp lu ko may may ragal suñu borom ci la ko amé ala nga bulano ala nom señ bi ne nañ top suñu borom hadama dihum ne dom adama i ñanta ku soto la war nga am dara jalnin ku ke soto bala dara du ku le soto te bayila ni ku ye soto way ku tare bulu wo ku min a y'a bulu o buka wo ka tu jele buka ta hani ku ye soto itele ka taa min tare bulu o buka ta oh, ne nit bala defal dara bala dara la jot waaye soo tax xamal ni li lay jot loolu mënta ñàkk foog dara jot la waaye fekkee dara daf la ñëw daf jot la mu fekk defoo dara doo am na. akee bànn. nee donc da lay jeexal tàkk. walaatin na. nee loolu moo tax. nga kuusoto. ñu ñu am dara. wolom ka ka ala noonu. mooy ñu am yàlla. topp naa ye min fo. lu mu wax. nga ok ñu def ko. الله الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب آبائكم الأولين رب آبائكم أولين الأولين الأولين والآخرين والآخرين ربكم ربكم ورب آبائكم الأولين ورب آبائكم الأولين أتلم ماريودي مو موي سونو بوروم ميم أتلو yéen ñi batu nga faalen te mu jimaale te alam ma wax leen ma may alam ma mañol na le aji al meje so ye gise samba fenn ye samba o fo mi ye samba mi ye dada wala ye samba na la na be bennale no amin fo na na ni be bennale du no be kala wota ala hakilo tun te mu jimaale te nga damay tase ak ñoom ëllëg te xam nga ne yéen tamit dina tase ilaha illa huwa mona Allah yalla mum لا إله إلا هو لا إله إلا هو كأي تلا مجماتي أقوم بمن فلاليتي نالي مالون أتلا ماريوتي أتلا ماريوني ربكم من علم علي فندادا ولا يالي دادا ورب أبايك من أولي ورب فمان من فمان فدا أتلا وفندادا مموم سن بامي أسن باي مومولين تفر مموي سن بام أمي دافا يتندلا نينو يغن وانا بوب نا نادا أقوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا allahu laa ilaha laa yajmaannakum ila yawmi alqiyama laa rayba fihi wa man asdaqu min allahi qawlan aɓen cancana doro aba fan yitandilan na nin hañitaña ma ñanna hañilaña nin man hañaña ñanta silan nala nga silanga la nin ka ragal na dimbaya to si suñu njaboti yi nga silaŋaa ñu ragal ko na sototo suñu am-am nga silangala ñu ragal ko na tamoto suñu ci doxin nga sa silangala to na na fulo ñu ragal ko suñu alal nga silangala to ñu ragal ko wulu feŋolu to su ni la yi mm-hmm. nii la fitaf ñaani ñala so bëgge muccu bu rafet sila alal ragalal suñu borom ni la faa kuu ñimmaa la soo bëggee faakuu la ku na mujjuba dee dee mu mucc ay si la ala la ragalal suñu borom nii lafta faala musulmé a kan ne soo bëggee dee tamit si di kaw jullit si la ala la ragalal suñu borom ye si la moo la fanaa mi man si la ala la ragalal koo xamante ne aussi koo xam ne dafa ragal yàlla يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ودون نيسلان دالا لا يالو نيمان تفالا نادين مو مسلان دالا ويالو نافانا ممونسي أيالو نابي فالا دينا جمالك أيالو نابي فالا نادين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ودون فانا ما نيكم بلا كن جو سدي ورلا أنتم wala mun na silafandooti sëñ bi nee na loolu mooy sëritéem Mouhamed Salim radiallahu taala anhu Cheikh na Cheikh Mouhamed Salim Sall radiallahu taala anhu a taata janna dafa dem janna a koye biin laftaan naalee kacca mu ne tey dama bëgg a waxtaan ak yéen i kaye mu ne mu ñu nekk lan la a kun lafta saate bee be mu ne dama bëgg dëkk bi yëpp tase a koye janna mu ne janna kimalen nene yaje ngati ya kama chika mola kunkoto ne kan mo musa gis ma jël ben got get xotu gette ci ci tolu jambu ye ka nene mansut ñu nek musul am akwal kan tubaño min besene mu ne len dinne wala ka tubaño suña ja je tubaño kunto nga suña ne kan mo musa gis ci tolu mbok ma jël fa ben mbok bu ma mom ye ka nene manje ne nek musul am akwal ben kuntu kuntu min jimmalel ne nen nin i musoy ngamin bulo muta nene lien mi gis yëpp ñuy jaabante kenn moon musa gis ma jàpp loxo soxna jàmbur ay ka a nene manke ne ko musta am an koye jambe jimala nen na baadin kuyate ka sabutantele la walla la ŋo walla koto walla fa walla a wax ni yàq sa mbokk xuloo nga ak sa mbokk wala dogoo nga ak sa mbokk ñu ne kan la Cheikh Mouhamed ne fa am na a ko woto mu ne kon nag ni ma min ke lu ma deful ala la n'ale y'a kɛ ala la ni ala ye n sɔn wa jɔn y'a ta jɔn y'a tɛ mulu na n'i yɛrɛ fita jɔn y'a ni mɔ jɔn ka mun kana mulu woto fenke do ku ke mol ma min ke si jo fene ma mol jo min ne so beugé li lay fay dunduro ak ñeneen kon liggéey lo xamantene ken liggéey lu mel non su boba dinañ la fay luñu fayul keneen wala malla silafandode nee na loolu mooy seen yóbbante seedi ko ne seydi nee na nga fellaale bulu moo teg leen seen loxo min baali nafaa la loo xam ne da di jari wala mu ñenti mooy lii nga silannu ala la ñooy ragal yàlla nga ala naaneelu kanta ñu ñu ñu ñu xam ala fita yàlla lu mu bëgg ak lu bañ nga woke ñu def loolu amal la fi min na lu mu bëggul nkanaa woke ñu def loolu na dimbaayal dungaa la ñu jël defu suutiyoo def loo ko suñuy njaboot ñu def kono yibbe la suwo kono nga nek sa kër yibbe te sali wato sita waxtu julli jot te sali nga julli ye dum tu damu ye la ngay bay say doomi ni la ye tu hatayo la ngay bay la ñuy ata afule sali do len wax julli ne wato sita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi dum bina sile be ni nga andu ni anji ni ka ite fem fo no la woto ni man fem fo je be yankan kati la la kati ye kar ko tele kullukum ra'in dindi man fenke dindi man fenke dindi dindi ti ole fenke ah, dindi ti fenke be yan man tiñaari ke kunko to be yan ti wala samba kunku bal wala wala na dunda wandi kunko ko na tiñaro na ma asamba jadi tiñaari ke o do dimbal be kara fare mal ala ni do na fi dandila ala lafta minna manga feñ eh, bali fenn ala man lafi min ni ngo ke doron ni ala si yalla na si lo xamantene yalla mom la bëgg ñu wéyel ak ñom ci loolu di leen won di leen womat ci loolu lepp lo xamantene suñu borom bëgg ko ñu ñu bay ñu téré leen ko ñu bañ ko def mbe duwala bee sëñ bi nee na mu bee nee na xalif bi mu ngi ñaanal ñëpp bee nee na maolana cheikh bee ak moo moom maa beeta jam ala daane jaari i fanaye maa bee jam ko teke yow i haaji jaarariŋo i haaji jaarariŋo nee sa aaju <laughs> soto ku amul ala ye kee di a la min man din soto amul doom ala ye diŋo di la min man muso soto amul soxna ala ye musoo di a la min man doo kuu soto ala ye doo koo di a la min man harijee soto ala ye harijee bundaa ye la ye min man taama <coughs> ala tamo sonaya min tamada ala kayti ko sonaya wa min mu ye kayto soto ala do ko ko sonaya wa ala kanatinna insha allah soto fengo soto fengo soto fenwulu am am ka, ka saaray bulanje nee na yàlla bañ ca def benn yàqute insha allah insha allah bay naata ñëpp ñëw na kayra kono te na ci biir. xewal ah, kayra kono beela naata kayroo kono. nee ñëpp sey. na ñëpp ñibbi. kayroo kono si jàmm. bee futa. ñëpp i dinkiraato. si i seewoore i kiisare mu. ak soto. dara bañ la jot incha allahu. jaara. yàlla fay ñaar ale jaara. yàlla fay Yusuf yee toofole. nee na daayiraal bi toofole. dimul bi jaan dimmusu dinki aye be toofale lun tawon bi jaan aye toofale wo sadio mahamadou koamin bi aye suwane bi jaaye fana toofale aye lun tawol min na rasulwal aye toofale aye moɓe toofale donc ka seya kan womo si mendolde bara ala be haajo jarala inchallah ala si be haajo jara ala si be haajo jara nde ɗen mam mo soto ngatol le soto mam mo soto nee mom amul ken ŋaato lesoto ne yéen la am ila sallallahu taala alayhi wa sallam yonente sallallahu alayhi wa sallam abe bankela la bis jot na muy yekati kaddu akuma ta musa ma nee mu wax akuma ta ibrahima ma mu wax ci akuma ta isa ma mu wax ci yonente yàlla mu isa akuma ta daawuda ma mu wax ci akuma ta suleyman ma akuma ta sisma fo saayibol hakilo jagnat ba sahaba yi xel xawa jaxaso je kaye ko ñu ne ko kila seeta ɗum munete yeke yonte sallallahu alaihi wasallam kono ku bentol bulu talaro keta ñu ne seddele nañ talaro keta ne seddele nañ bare koren to ne lumbur man tak mm, mm, ba ñun ay yobante lañ eh, yobale lumbur wala mu ñine koren tol fentata manam ba ñun yobale nañ dara kila sallallahu ta'ala alaihi wasallam ayede sallallahu ta'ala alaihi wasallam ako ana sayyidu bani wala bani adam wala fakhra nena أنا سيد بني آدم ولا فقر ولا فقر, أنا سيد ولد بني آدم ولا فقر أنا سيد ولد ولد, ولد بني ولد آدم بني آدم ولا فقر ولا فقر فين فين آدم يا ولو لب loo خمنت آدم جرنكو أنت لا ko. ndele baa bee نك man maa fen fen ni aadama yaa wulu lépp a musu kee ni aadama le yaa wulu ntele boo bee kam woto ka dola fi samante itandi kon wane sa ngeneelu moro foytal barim kila sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sallallahu ako ana hazukum minan nabiyyin wa antum hadi minal umami atole mun tol atol ntel ma tol niyoti nabiyo mol kono atol mun te niyoti fana ban tol kono wallahi kalta la atol min jeta atol mun te niyoti hana lakira yele sama ndono yele sama yele nin lakira sida nin ala be fenkelani wallahi na tol nin nambe wili la dame na tol nin be sida dame na tol nin be lo dame na tol wallahi hayati hayatukum ayol ko madina ko le ko ko mati mamatu matukum kila sallallahu ta'ala alaihi wasallam ayol banke madina ko le madina kajita ra fathu makka madina kajita na fulo tara da fo fe mo be tala madina ko le kajita e ko kila fe sallallahu ta'ala alaihi wasallam borta nga ma koy sa dun tam makka afala nyina tan ay madina ko le kila ko mo nyi mal wasaba na balu mo madina tan sa saya madina ta fo man kanya madina baba madina be kumbo de ka kanya tam kila sallallahu ta'ala ako makan ko tuje fe ngota madina ko alinta kila min dole binama ke madina

Ali sabar Ali sabar alaka ya alaka ya. Angel salatu ala nabi sëriñ bi. Bismillah. اجرا يا ربنا وجعلنا للمتقين اماما استجب دعانا وتقبل منا اعمالنا يا رب يا سميع يا سميع يا قريب يا مجيب يا شفاء اللهم صل على سيدنا محمد المهدي الحياه اللهم صل على سيدنا محمد المؤمن الحياة اللهم صل على سيدنا محمد النبي اللهم صل على سيدنا محمد بلا شك اللهم صل على سيدنا محمد بلا ربانية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة دائما يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب حسن خاتمة آمين بارك الله عليك الله عليك